Un grand merci à tous nos sponsors euh, Genskin muy euh, large gamme de produits pour la peau lu ci mel ni crème solaire yi tout le temps ñu wax leen ko ci météo bi boisson Cobra également café euh, Vala ak charcuterie yi di Sala ñoom ñoo ñuy gunge ci matinal bi ñu egsi ci jàngat bi ak suñu gan bu njëkk di Mamadou Ngom nekk économiste fiscaliste enseignant associé FASEG ba ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru monsieur Ngom ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. di nuyu borom kër gi. nuyu si waa Sénégal yëpp ak mm. àddina yëpp. Mm. jërëjëf alors monsieur Ngom fan yi dafa am benn expression boo xam ne day faral di ñëw ñuy wax wàllum pression fiscale euh, ñenn ñi sax di wax naan day am njeexital ci wàllum koom bi ak li ñuy duppee environnement des affaires peut-être dañuy commencer par wax déjà lan mooy pression fiscale et puis naka lañ koy nattee. Euh, pression fiscale soo ko déggee ci fiscalité. Mm. benn agrégat la maanaam benn nattukaay macroéconomique. muy xayma recette fiscale maanaam l'impôt yi ñu jël yëpp par rapport au bi léegi nag pression fiscale boobu dañu bëgg parce que UEMOA moom moo laaj dëkkam yëpp ne leen jëm leen attendre 20 pour cent Sénégal nag euh, toog na at yi yëpp passé ay 19 pour cent lañ daan toll léegi nag euh, xayma nañ ne 2024 bi dinañ dem ba 20 virgule pour cent 2025 aussi dina xaw a yokk ba deux ba 21 pour cent ba daal soo ko gisee daal xayma la li ñu naan agrégat macroéconomique comme ni ñuy waxee PIB PNB revenu national et cetera. Mm-hmm. est-ce que constaté nga ni Sénégal justement cette pression fiscale am na fi déjà. am am na fi parce que pression fiscale bi mu ngi euh, mu ngi évoluer muy évoluer parce que en moyenne nit li ñu projeté d'ici horizon 2000. de mille vingt cinq parce que dafa am benn programme pluriannuel boo xamante ne natt nañ daal en moyenne dinañ def 9 pour cent ci évolution. Hmm. pression bi dina évoluer mais nag euh, évolution bi dafa timide aussi. timide moom mooy mënoon nañ am beaucoup plus nag. mais bu bu si kon est-ce du ñaaw bu dee am nañ beaucoup plus parce que déjà lii rek am na ñu koy ñaawlu yaa ngi gis waa INACOA naan mbir mi tar na tar goo xam ne sax ñoom dañoo bëggoon sax ñu réviser li nga xamante ni Euh, code bi bi ñu ko indee code bu bees bi ñu am ñu ngi ko am en 2012. xam nga suñu première codification 1976 la. Mmh. après 92 ñu xoolaat parce que boobu dañ ko copier woon si modèle français yi am na yu bari yoo xamante ni nuroo woon ko say jikko 1992 ñu daal di defaat beneen ko tëgg ko. pour méngale kook su euh, suñu mode di dund ak suñu entreprise ak yooyu yëpp. Mm-hmm. moom mooy loi 92 49 euh, du 9 juillet 92. Mm-hmm. maintenant bi ñu ñëwee 2012 ñu ne waat nañ ko tëggaat dañ ko tëggaat parce que suñu model de développement dañu xool ne dañu yaakaar trop ci impôt. Mm-hmm. léegi politique fiscale dafa développé. parce que soo leen umpalewul. Euh, <coughs> bi ñu amee crise dans les années 80 ay programme d'ajustement lañ daan def structurel yooyu dañ ko daan def sous la sphère maanaam dañuy jël naan sa demande war nga ko wàññi war doo subventionné mais yooyu bi ñu ko defee li ñu soxla woon tigi amuñu ko ñu changé méthode d'ajustement def ajustement monétaire ki ñu naan dévaluation à 94 boobu aussi dem dem na tuuti metti woon taroon na lool lool lool waaye permettre nañu au moins ñu def les grands équilibres macroéconomiques at yi si tegu nag waa Union européenne ak ñëpp jàppale ñu daal di ne léegi Afrique jot na ngeen développer seen propre moyen su boobaa nag impôts yi ngeen war a organiser ñu daal di ñaari impôts impôts yi gën a liquide mooy yi nga xam ne muy gën indi xaalis mooy TVA bi moom mooy droit d'accise bon droit d'accise suma ko mu ne wax juriste ñu ko naan taxe spécifique mooy taxe yi jël ci alcool yi ay tabac. Mm-hmm. ay corps gras alimentaire et cetera. ñaar yooyu ñu ne suñu dëkk yi. Mm-hmm. tëggaat leen ko ba ngeen xamante ne di ngeen mën a yéen ñëpp ngeen di taxer de la même façon ba pare aussi mu ne am ay recettes yoo xam ne doo leen lor aussi seen dëkk. noonu la demee moo tax fi mu nekk nii dëkku Afrique yëpp def réforme fiscale. Mm-hmm. pour adopter une nouvelle fiscalité. ah léegi monsieur Ngom bu ñu demoon ba euh, sëy yu yaa ngi koy fàttali UEMOA mooy 20 pour cent mais bu ñu demoon ba sori ko ay 12 pour cent maanaam comme ni ñu ko nemmeeku woon ci at yi ci ginnaaw parce que depuis 2015 ñu ngi jege euh, sëy 20 pour cent boobule loolu bu amee qu'est-ce qui allait se passer sur le plan économique. voilà qu'est-ce qui va se passer xam nga pour nga am une bonne politique économique. parce que ku ne politique économique ne politique euh, monétaire ak politique budgétaire. Mm. budget li ko tënk impôt te seet nañ boroom xam-xam yi gën a yi yi gën a am solo wàllum économie mën naa citer seulement mais euh, ku ñu naan Joseph Schumpeter mhm. mu ne en fait euh, rien ne montre plus clairement le caractère d'une civilisation ou d'une société que la politique fiscale pratiquée par les politiciens donc loolu dafay wone ne liy euh, wone taaru dëkk moom mooy politique fiscale bi politicien yi di def parce que impôt moom ñun fi lañ ko fekk moo jiitu lépp science boo mënti dégg fii actuellement bu ah développé impôt ko jiitu mm-hmm. kon nag politique fiscale lu am solo la mm-hmm. lu am solo la si réew il n'y a pas d'économie sans impôt mm-hmm. léegi pourquoi on en parle plus maintenant bu fekkente ni at yi weesu tamit gis nañ ni que taux bi ça n'avait pas changé pourquoi ça crée euh, une plus grosse polémique actuellement bon gis nañ ne li li ko waral mooy euh, ñu ñëpp constaté nañ ne est-ce que élargissement assiette est-ce que ñu waroon a fay yëpp. ñu ngi doon fay mm. loolu moo doon suñu problème. Mm. assiette bi dafa étroit. seet nañ aussi que ne ñu ñu war a gën a fay ñooñu euh, est-ce que dëgg-dëgg ñu ngi fay xam nañ ñu fiscale yeeg keek yooyu yëpp. Mm-hmm. ak aussi naka la ñuy épargner néew doole yi parce que impôt dañ naan ñëpp war a fay mais après dañuy ñëw ne suuf principe impôt noonu la xam nga doo ñëw ni diw ak diw da ngay fay. dañ naan yéen ñëpp fay leen ba pare daal ne ba mu des diw ak diw ak diw parce que su doon lim rek day am ñu rëcc. voilà loolu lañ naan exonération. kon nag politique fiscale bi ni mu amee euh, caractère de développement la développement la parce que impôt moom ñu ni mu tëddee su suñ naan développement de l'impôt. Euh, facteur de développement. am na ñetti fonction yoo xam ni si koy xayma kooku ñëpp si d'accord moom mooy fonction de régulation soo seetee euh, état dafay agir si impôt pour rétablir les grands équilibres bi fi Covid amee xam nga ni si impôt la njëkk sukkandiku pour régler mënuñu woon jaar suñu monnaie parce que amuñu autonomie dañ ne yenn impôt yi ngeen war a fay yii nañ ko annuler yii nañ ko différer et cetera am beneen fonction bu naan fonction financière naka ngay mën a dugalee impôt parce que ñi nga xamante ne dañuy def ay pollution ak yooyu impôt yu tar lañ leen di def ñi nga xamante ne dañuy promouvoir développement euh, ñu def ay régime privilégié ak troisième fonction bi mooy fonction sociale de l'impôt mooy de redistribution voilà mooy impôt yi nga xamante ne dañ ko jël yi des dañ koy joxewaat encore. Mm-hmm. moo waral ay bourse familiale moo waral ay programme construction d'infrastructure yooyu autre autre léegi évasion bi nag parce que jàpp na ne Afrique aussi même président de la République gis nañ bi mu demee France Jeux olympiques yi am na benn ndaje bu amoon moom évasion fiscale bi jàpp nañ li gën a sonal Afrique ci la bokk ñoo xamante ni war nañoo fay di sàcc wala ñuy daw ki dem ba rek am na koo xamante ni mooy première bête c'est un russe jot fi def liggéey lu bëri naroon na jaar aéroport ngir daw parce que duñ fay mm. voilà évasion fiscale Afrique lañ koy gën gis na lañu koy gën a gis su ma nee évasion fiscale su moom danaan fraude fraude fiscale am na nag ñuy def différence bi. Mhm. bon Afrique li mu tëddoo xam nga ñun bi fi impôt di dugg dañu amoon suñu maam yeeg yooyu dañu réfractaire woon parce que ñoom organisme ñoom amoon nañ seen propre organisation alors bi colonisateur bi ñëwee indi beneen nag su boobaa dañ naan dañuy bañ. Mhm. léegi moo waral ba nga xam ni civisme fiscal pour tëral ko fii dina metti civisme mooy nit ki am yëg-yëg bu mu naan mm-hmm. dama war a fay impôt comme tout bon citoyen loolu nag moo waral nga euh, gis évasion fiscale bi rëy trop am na si ñun am na aussi si national yi mm-hmm. kooku dañ koy wax mm-hmm. parce que justement ci foofu la par exemple suñu ñëwee tey jii euh, si on se base sur l' actualité société bu mel ni Woodside yóbbu gouvernement bu Sénégal ci yoon redressement fiscal lañ leen defal apparemment mais lan moo andi redressement fiscal boobu par rapport ak l'ancien régime dañoo amoon ay facilité ñu yombalal leen pour ñu mën a implanter wu def seen liggéey ñi euh, ñëw bëgg a changer les termes du contrat peut-être que ñoom tamit ñu yóbbu leen ci yoon et puis ak man impact la mën a jur redressement fiscal euh, entreprise bu nekk war nga ko sóor parce que balaa ñu lay redresser d' abord risque bi dafay ñëw ne damay càmbar sa mbir. damay ñëw seet. aviser la d' abord jox la avis de vérification jox la aussi benn charte ñu naan euh, euh, charte des droits et obligations du contribuable vérifié. wax la kañ li ñuy ñëw vérifier seen durée ak objectif su boobaa nag su paree nag lañ la naan ah yow de sa lépp leer na. ñu arrêté def la absence de redressement su ñu gisee ne am na ay manquement nag su boobaa nag lañ lay redressé voilà redressement yi nag dinañ la ubbil ay bunt yoo xam ne di nga ñëw def ay recours ak yooyu yëpp mais daal dans tous les cas daal mais pourquoi ça se finit en justice demee parce que suñ la redressé yow nga ñëw gis ni lii dañu la laaj peut-être dafa jéggi daa yow nga yóbbu leen ci yoon lan mooy waral loolu bon li li koy waral très souvent xam nga côté contribuable fiscalité dafa yaatu. te fiscalité lépp lépp si benn critère lañ ko kii critère de légalité taxe rek la ñuy appliqué ku ñu redressé soit dafa am manquement wala aussi erreur parce que yow soo génnee sa justification. fisc bi day dellu si saa si defal la absence. même su la redressé ngi indiwaat yeneen justification mu ne ah euh, abandon de redressement. léegi nag si kaw yooyu dinañ la may ay yenn buntu ngay def yenn recours mais suñ demee ba nga xamante ne le désaccord se se noue alors là dinañ génnee si règlement administratif dem règlement judiciaire. alors sànq da nga wax euh, euh, terme bu am solo muy élargissement de l'assiette fiscale euh, tey ji ndax. pour ñu yegg foofu waruñu changer de paradigme maanaam dem ci allègement Euh, euh, bi nga xam ne moom mooy fiscalité bi ngir mu gën a yaatu ñi nga xam ne ñoom ñooy fay mu gën a woyof bu ko defee liy dugg ci koppar yi tamit euh, gën a bëri. effectivement euh, très souvent su ñuy ñaar li ñuy seet. Mm-hmm. néew doole bi d'abord. kooku amul lu mu fayee. ak ki nga xamante ne day développé ki nga xamante ne su ubbee société dina jël mille personnes wala plus dina créer de la valeur. si ñooñu la ñuy seet seen allègement wàññi mais actuellement ni élargissement de la l'assiette su koy gën dégg moom mooy dañuy jéem a rechercher en payment dem seet ñi nga xamante ne fayu ñu woon ñu leen di fayloo ak ñi nga xamante ne lu néew lañ doon fay pour ñu teg leen si yoon daal noonu lañ ko xayma te te gis naa ne critères yi ñu posé nii assiette bi mu ngi gën a développé parce que taux de croissance bi c'est quand même euh, donc yow da nga jàpp da nga bokk ci ñu jàpp ne bu ñëw ci thème bi pression fiscale bi lu baax la ci économie parce que am na ñoo xamante ni ils soutiennent le contraire parce que dañoo jàpp ni am réew moom ñi surtout yi gën a développé du développement boobu fiscalité bi moom moo ko ak pression bi. bon li ma jàpp impôt moom. am na solo on dit pas de l'impôt am na solo am na solo parce que parce que en économie parce que ñun ñun li ñu ko jàppee daal moom mooy facteurs yi def nañ de sorte que parce que sooy sooy seet économiste bi d'abord xam nga du ñu tëb rek ne diw fayal impôt. Mm-hmm. état bi mooy soxla impôt par sa souveraineté ak collectivité locale yi. léegi su boobaa dañ naan économiste yi nattal lañ ñu impôt dañuy seet ban catégorie impo impôt bi ndax sa revenu lay jël parce que balaa ñu lay imposer yow balaa ngay jot revenu. Mm-hmm. dinañ ko imposer. Mm-hmm. li des soo ko dépensé ñu imposer ko te booboo gën a rëy boobu ñu bari duñ ko sentir parce que duñ ko détaillé. mooy li ngay dem di jënd. waaw kañ li ngay dem di jënd TVA beeg yooyu. mais impôt bi ñu lay dagg boobu danga koy sentir parce que xam nga ko. Mm-hmm. te suñu lay dagg sax dañ naan su dee fii Sénégal dañ naan li nga am yëpp du ñu jël lu ëpp 43 pour cent du revenu fiscal. su ko naree dépassé rek ñu arrêté foofu. boobu la ñuy njëkkee donc di nga fay balaa ngay jot di nga fay soo dépensé ah soo soo ko gardé aussi li ñu naan la jouissance aussi di nga fay waaye beneen. Mm-hmm. loolu lay won ne gis nga impôt ni ni mu étalé woo si ñun ànd ak ñun. donc ki facteur de développement moom. kooku moom kenn ko teg. alors pression fiscale boobu diis na ci ñenn ñi ba am na ci sax ñu nga xam ne euh, ils ont la cle au paillasson ndax est-ce que tey noonu la war a deme boo fekkee ne da nga ameel fisc bi lu bëri dañ la war a teg. kut ko kut nga fay ko ba mu jural la tëj wala am na ay procédures yu nga xam ne war nañ ko mën a teg ba ngay fay te du tax nga tëj parce que entreprise bu tëj moom loolu yi tamit musiba la cim réew. voilà effectivement bu euh, xam nga di ku am tigi tigi problème ak impôt parce que yow moo waxoon na ne bu benn entreprise tëj ngir affaire bu impôt. Mm. muy dëkk boo xamante ni suñ nit amee vraiment problème ak impôt rek. li ko waral moom mooy abus droit maanaam si sa comptabilité ak yooyu ngay def ay yenn montage wala leneen ak ñi am ak problème ak impôt très souvent du kii ki nga xamante ne fayul mais ki nga xamante ne mu ngi jaxase quartier yi mm-hmm. xam nga am na yenn dëkk yoo xamante ne ay États-Unis soo déclaré wu rek mën nga dem prison mm-hmm. mais fii est-ce que dinañ ne nit ki fayul impôt mu nga kax mm-hmm. déedéet Mm. bon bon bon loolu am na bon nag euh, pour dire que ne ñi am problème yëpp daal société recours légal bi def nañ ko. ay sportif sax gis nañ ko en Europe ay mhm. sportif yoo xamante ni justement dañ leen topp parce que parce que feex na fi mais UEMOA boo nga wax dañ ne Sénégal nag bokk na ci réew yi nga xamante ni seen taux d'imposition moo gën a kawee ci e mois waaw loolu moom parce ce que bon bonne nouvelle la bu fekkente ni gars yi bëgg na ñëw ngir investir dégg du ndaw. voilà investisseurs nag dañ dañ leen di préparer très su yow sooy indi sa capital am nañ li naan code des investissements am nañ lay teralee ba nga xamante ne. Mm. yow impôt bi du des yow mais yow itam en retour da am yenn engagement yi. Mm. parce que pour ñu at benn code des investissements da ngay def loo xamante ne produit yoo xam ne dañ koy exporter jaay ko bitim réew pour améliorer suñu balance di nga aussi recruter ay nit création de l'emploi di nga aussi promouvoir le cadre économique fi ngay liggéey ak yooyu yëpp. en retour nag ñu ne la dinañ la teggin TVA telle période dinañ la lanati way wàññi say impôt sur euh, les sociétés et cetera. Mm. noonu la tëddee daal. te mm. mm. lan moo tax kon ci zone UEMOA bi ñun ñu féete ci kaw ci wàllu imposition. ba bon bon da xam ne euh, Sénégal benn xarañ na si affaire impôt. parce que kooku depuis mën nañ ne depuis deux mille euh, depuis les années deux mille. voilà ak régime bi fi ñëwoon si si la daal. bëgg naa compter ci impôt améliorer système fiscal bi voilà. kon ba dañoo nar a gën a xarañ ak régime bi. <laughs> d'autant plus que inspecteur des impôts et domaines président bi neen déformation professionnelle. <laughs> voilà dañoo war a gën xarañ mais xarañte bi yëpp xarañte bi yëpp pour dalal xel yi. Mm. actuellement nii même. parce que taux de pression fiscale bi di ñu am ni muy 20 atteindre nañ ko Togo amoon na ko mais fi mu nekk nii su suñu gis-gis mooy. Mm. mën na wàññeeku. Mm. mën na wàññeeku si kaw taux de pression fiscale bi muy wàññeekoo. xam nga atum euh, ren bi dañuy def li ñu naan rebasing moom mooy euh, mm-hmm. grandeur macro yi dañu koy redéfinir. Mm-hmm. te suñ ko defee rek suñu PIB mën na yéeg artificiellement su yéegee nag yow loo mën tam si pression day wàcc kooku technicien bi moo koy xam. Mm-hmm. loolooy waral moo waraloon ay. Euh, 2019 yooyu ñëpp yaakaaroon nañ ne dinañ ko kii ñu ñëw wàcc bu 17. bon nag administration bi dinañ jéem a defaat seen kéem laay kàttan. parce que soo demee ba 20. ñu defaat euh, euh, rebasing. Mhm. sa taux wàcc dinañ jéem a def seen kënt laay kàttan pour gën ko mën a maintenir. Mhm. alors monsieur Ngom sànq euh, Cheikh Tidiane mi ngi doon wax wàllum fraude fiscale évasion fiscale mais yow fraude fiscale ngay wax lu mel ni Sénégal est-ce que quantifié nañ ko est que xayma nañ ko et puis yan secteur xam na xam nañu yan secteur la yëf yi gën a touché. loolu nag moom mooy ay ay ay statistiques yu ñu ci kooku moom mooy moom mooy euh, euh, moom mooy problème bi daan ne bi nangam la toll ku koy wax mhm. mais nag mën nañ ni nangam lañuy ñuy ñàkk. Hmm. li liñ naan euh, euh, lu waroonu dugg. Hmm. ñu ne bale nañ ko kooku lañ naan dépense fiscale waaw mais fraude moom soo demee ba xayma ko rek moom mooy li nga jàpp. mais am na yu bari yoo xamante ni mënatuñ ko teg bët fi mu nekk. Mm-hmm. ak ak li nga doon wax sànq tam wàllu civisme ci euh, aspect euh, fiscal bi loolu naka la ñuy def gis nañ ni DGID ñu ngi def euh, peut-être mm-hmm. ay effort def ay campagne ay spot et pour inciter nit ñi ñuy mën a fay seen impôt est-ce que en dehors de cela dafa war a am itam ay réformes ñuy def wala leneen ngir loolee lépp fexe ba nit ñi di mën a fay impôt xam ni lu leen war la. voilà question bu important parce que xam nga fii ñu bari xamuñu xamuñu impôt. ak importance bi. ak importance bi parce que impôt fu ñu koy jàngale faculté droit faculté sciences économiques. ak euh, école d'administration ñooñu rek ko doon xam. Mm-hmm. mais léegi nag dugal nañ si école d'enseignement supérieur yi. Mm-hmm. ku nekk mën a xam say impôt. Mm-hmm. mbir yi noonu la tëddee. ok mais ok pour dellu si ci question naata bi léegi euh, souvent dañuy faral di dégg paradis fiscal. naa ni paradis fiscal xam naa ni mooy euh, <laughs> traduction littérale euh, loo xam ne daal lay neex mel ni àjjana parce que da koy peut-être denc sa xaalis euh, te duñ ko imposer yooyu flux financier boobu tey jii est-ce que sunu état yi am nañu doole bu ñu ko toppee ba mën a xam exactement fraudeurs yi fi ñuy denc seeni koppar. voilà paradis fiscal. un fiscaliste moom soo ko nee paradis fiscal danaan amul <laughs> ñeneen ñi ñoo koy def parce que ki gën a xarañ si éco si fiscalité Maurice Koudia da danaan danaan paradis fiscal amul paradis mooy foo xam ne li nga war a fay impôt dafa néew soo jëlee ay dëkk yu mel ni Suisse dañ naan paradis fiscal la mais si dëkk yi gën a cher la hmm. est-ce que àjjana di nga jënd ay lu ak affaire demee noonu non bon oh. nag ñoom li tax nit yi di gën a ñëw dañu am ay systèmes fiscaux yu bari comme yow soo nekkee sa dëkk ñu ne képp kuy milliardaire di nga fay nàngam soo demee Suisse ñu ne la yow milliardaire nga suñ lay impôt duñu xool li nga am mais dañ lay imposer ci sa train de vie fiscalité attractive la am na beneen façon bu ñuy wax paradis fiscal nga xool Libye au temps de Kadhafi même. Mm-hmm. danañ wax paradis fiscal la parce que foofu impôt yu bari dañ ko supprimer woon. Mm-hmm. mais nag dafa amoon compensation. Mm-hmm. maanaam loo waroon jot pour fay ko impôt état bi mooy def ba nga xamante ne yow doo ko fay mu jox la li des. bon euh, les paradis fiscaux en fait. Hmm. Euh, mooy daal joxe ci loxo bi rectifié ci beneen loxo. waaw impôt noonu la tëddee. en quelque sorte d'accord. Euh, coow li coow li coow li moo moo doon moo doon yi gis nga presse bi daanaka ñoom ñoo ñoo gën a yuuxu donte ñu bëri. tey nekk nañ ci situation. bu mel nii waaye euh, euh, moo tax ma ni ñu bëri ñu ngi situation bi doonte presse bi xëy na ñun ñoo yor waxukaay yi ñun ñoo gën a bëri ñun a bëri coow mais bu ñu nekkee dans le secteur spécifique de la presse dafa mel ni ñu ci bëri ñu ngi ci ay jafe-jafe boo xoolee par exemple RTS Soleil on parle de 33 milliards yeneen sociétés privées yi également comme TFM ak ñeneen ñi ñu ngi ci ay jafe-jafe euh, ñoo ñu tey pour président sax mi ngi wax ne nañu woote waxtaan xool naka lañ leen di jàppale entreprise ci bëri dañu déficitaire tey bu ñu leen bëggee pressé nee na ni est-ce que du indi jeexital ci wàllu li nga xam ni mooy seen doxalin ak seen liggéey. voilà si principe ak nan lañ leen mën a jàppale. principe de l'impôt d'abord dañ ne impôt warul faagaagal producteur. waaw warul rey coow li comme ni ma ko waxee sànq très souvent en fait euh, mooy mooy par exemple duma ma wax mauvaise gestion wala leneen. Hmm. mooy très souvent en fait impôt bu jot fayoo ko. très souvent. te comme voilà. te sooy seet entreprise yi aussi impôts yi nekk seen dootu bari na trop. parce que euh, war nga fay si sa résultat sa bénéfice. Mm. sa bénéfice fiscal. parce que soo soo nee fiscalité lii réeral nit yu bari yow mën nga ne deux cent laa am comme bénéfice deux cent millions. fisc bi day ñëw corriger ko day corriger xool activité réelle. sa 200 yooyu mën na ñëw ne yow kat 200 nga déclaré waaye man maa ngi lay imposer si 300 mooy comme soo importer marchandise nga ñëw sa valeur CAF bi coût assurance fret nekk 150 millions waa douane dañ naan dañ lay appliquer valeur mercuriale vraie valeur bi nañ la imposer si 200 millions. Ah. loolu nag lu bari bari bari mooy indi coow. Hmm, d'accord hmm. il faut toujours l'activité. réellement. fay mbaa moom duy wax ne kon. donc fay mbaa moom <laughs> amul suñu kii parce que sooy set antiquité comme li may faral bi wax. Mm-hmm. Euh, mooy période bi ah, xam nga jamono jooju ku fayul woon l'impôt dañ dañ lay jàpp jaay si marché. léegi euh, affaire yi évolué na. Mm. mu nekk nii depuis révolution française moom mooy euh, point de départ bi. si la dëkk yëpp voilà 1789 bi. Hmm. si lañ doog tëggaat daal impôt daal ne impôt warul teg fi benn kii. merci beaucoup merci jërëjëf Mamadou Ngom professeur ñu ngi hmm? la gërëm bu baax ñu ngi koy moom def na liggéey bu am solo ci màggal Touba gi hmm. mooy impact économique moom ak waa université Bambey ci ay jamono hmm. merci beaucoup jërëjëf ñoom naata ñëwee Touba danañ la dalal foofu jërëjëf <laughs> incha allah bu soobee yàlla merci beaucoup monsieur Ngom ñu jàll léegi-léegi ci ponk bu mujj muy suñu gan ñu dalal ko plat yu neex sakante baax ci yaram bi mooy gën a baax salade yàpp sell lañ ko defaree ak saftane bi mooy gën a baax salade sell na salade moo piire na te mën nga ci toppul lu ne saa yoo ko toggee dafay neex salade moo gën a baax te moo leen ëpp gu gën neex sala sala amul morom ñam ko seet sala amul morom bi xam corne bœuf ba léegi baax baa door a agsi corne bœuf sala moo gën a baax moo ëpp bu am na am bu ginaar ñu defar ko ci anam yu sell méngoog diine ñu togg moo tax mu yomb jëfandikoo boo ciy lekk da nga naan moo Sala da ngay togg lu la neex muy petit plat wala reer en famille corne bœuf du moromu benn corne bœuf ñam ko set. corne bœuf amul morom.